soxna maymunatu mbàkke soxna maymunatu mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1908 ci dëkk boobu di ci yéen jollofa booba sëriñ tuuba seexul xaddim mi ngi doog a jóge gànnaar bañ indi ko ci dëkk boobu di ci yéen jolof ci résidence surveillée foofu la soxna may maymunatu mbàkke bintu seexul xaddim mi gane lii di àdduna waajuram wu jigéen mooy soxna aminata bu buso aku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ñaar rek la bokkal waajur wu jigéen moom soxna maymunatu mbàkke bintu seexul xadim ñu ràññee ci cheikh abdu xaadir mbàkke mi nekkoon ñeenteelu xalifa xaadim rasuul ak ku ñuy wax soxna xadijatu mbàkke bintu soxna aminata buso bintu xaadim rasuul kon ñaar ñii la bokkal waajuru jigéen ak moom muy ñett bokk na itam ci doomu seexul xadim yi gënee àdduna ci dëkk boobu di cëyeen jolof ñu ràññee ci sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ak moom soxna maymunatu mbàkke bintu seexul xadim bi matee dal lii di alxuraanul karim waajuram wu tedd ndax boobakat waa waajuram wi jóge na résidence surveillée bi mu nekkoon ci ca yéen jolof ñu yóbbu ko ci njaareem mu dalal ko lii di alxuraanul karim ginnaaw bi nag la wax ñu jébbal ko sëriñ ndaam abdourahman loo ci ndaam daaru xalimul xabiir foofu la nekk ba bind lii di kaamilo alxuraan bi ceroog bi ko sëriñ ndaam abdourahman loo di yitaat seexul xaddim ci njaareem di ko wax ne li ma waxoon ma def ko ci may mënatu mbàkke mi muy mu jàng ba bind lii di kaamilu alxuraan kaamil baa ngi nii Maymunatu Mbàkke mi ngi nii ndax bu leen fàtte ne laata soxna Maymunatu Mbàkke bintu seexul xaddiim di bind lii di kaamilo alxuraan seexul xaddiim demoon na fi résidence surveillée ci dëkk boobu di gànnaar fekkoon na fa naar bu ñuy wax seex sidiya baaba seex sidiya baaba boobu nag amoon na doom ju jigéen bu bind lii di kaamilu alxuraan seex sidiya foboon na kaamil ba yit ko seexul xaddiim foofu mu nekkoon ci gànnaar di ko wax ne mbàkke bàlla li nga baax baax de amu doom ju jigéen ju bind lii di kaamil loola nag am na aal jum defoon ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ba tax na bi mu ñibbisee sénégal ci 1907 doomam ji di soxna maymunatu mbàkke bintu seexul xaddiim gane lii di àdduna ci atu 1908 bi soxna maymunatu mbàkke bindeeb kaamil boole ko ab reer indil ko seexul xaddiim ci njaareem seexul xaddiim bég na ba nett keroog loolu ko seex ya baa ba waxoon kon soxna may maymunatu mbàkke itim moo fajal seexul xaddiim al joojee ku duggoon keroog ci gànnaar Makhtar bi ko Cheikh Sidiya Baba waxee loolu mooy doomu seexul xaddim bu jigéen itim bu njëkk a yit seexul xaddim lii di kaamilu alxuraan kon ñaari mbégte yooyu moom seexul xaddim am na ku ci jëmm ji di soxna Maymunatu Mbàkke soxna Maymunatu Mbàkke itim ci yoonu murit itim mooy jigéen ju njëkk a jox seexul xaddim lii di kaamilu alxuraan ginnaaw bi nag jëlee nañ ko ndaam daaru xalimul xabiir ci loxoy sëriñ ndaam abdurahmaan loo jox ko nijaayam sëriñ mbàkke kandi Bousso lañ ko yëg nag sëriñ Mbàkke Bousso bu Gédé Bousso mu tëralal ko lii di xam-xam kon ci ñett ñii la soxna Maymunatu Mbàkke bintu Seexul Xaddiim jaar ci lii di njàngum xam-xam laata am njàngam doon noppi sax kii di ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim jëloon na soxna Maymunatu Mbàkke bintu Seexul Xaddiim ne ko demal ci sa mag ja soxna faat Ja Mbàkke mu jàngal la nu ñuy taxawoo kër yar la tarbiye la ci misaal daal liggéey yub jigéen kon soxna Maymunatu Mbàkke magam ja soxna Faati Xadija Mbàkke moo ko tarbiya moom soxna Maymunatu Mbàkke bintu seexul xadim bi matee dem lii di kër ngir liggéeyal suñu boroom sëriñ Tuubaa seexul xadim moo ko jox doomam ja sëriñ Muudu Abib Mbàkke ibnu Mam Cerni Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci dëkk bi di daarul muxti soxna Maymunatu Mbàkke bintu seexul xadim am naag njaboot kii di sëriñ Muudu Abib Mbàkke ñu ràññee ci sëriñ Mustapha May Mbàkke ibnu soxna Maymunatu Mbàkke ibnu sëriñ Muudu Abib Mbàkke ibnu Mam Cerni Ibrahima Faati Mbàkke Mbàkke ginnaaw bi nag la sëriñ Moodu Abib Mbàkke génn lii di àdduna magam ja Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke jël ko jox ko sëriñ Moor Soxna Mbàkke ibnu Mamoor Jaara Mbàkke mbàkke ci mbàkke xewar am na fa sax lii di ak njaboot ak kii di sëriñ moor soxna moom soxna may munatu mbàkke bintu seexul xaddim ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ cheikh may mbàkke imnu soxna may munatu mbàkke im sëriñ moor soxna mbàkke imnu maam moor jaara mbàkke amaan na fa keneen ku ñuy wax sëriñ moor may imnu soxna may munatu mbàkke sëriñ moor soxna imnu maam moor jaara mbàkke kon ñaari bant yii la am ak kii di sëriñ moor soxna bu maam moor jaara mbàkke soxna may munatu mbàkke bintu seexul seexul xaddim bi mu nekkee ci loxoy sëriñ moor soxna ci dëkk bu ñuy wax tawféex la ko sëriñ moor soxna yóbbu woon mu nekk fa ngir di jaamu kii du suñu boroom ci dëkk boobu sëriñ ndaam abduraxmaan loo ñëwoon na ziyaare si ko fa ak ku ñuy wax soxna awa buso sëriñ moor soxna nag daana ñaax kii di soxna may maymunatu mbàkke ngir mu gën a farlu ci jaamu suñu boroom loole itim soxna may maymunatu mbàkke defoon na ci ay way ngir di sargalaat sëriñ moor soxna ci ñaax gim koy ñaax mu jaamu suñu boroom tolluwaay yi ci soxna Maymunatu Mbàkke def bismillahi rahmani rahim sëriñ bi yaa ma tax a jóg su ma tëddee nga di ma bëgg nga ma jaamu tere bopp giñ naa yaa may dimbali giñ naa yaa fi andi maam yaa fi andi maam abdu mu jug mi dëkk ndaam yal na ñu yàgg dalale bëgg naa ci seen dikk gi lool daa doon nelaw tey maa ngi xool saa xel mi dal mu yokku lool te góor ga nekkoon baafali sun sanc bii ma nekk tey tudde ko taw feex di fi way ma fi may taw feex ju rëy te dëkk lépp saafara luy niru lar bu mu fi ñëw lépp lu baax ñoddil mu ñëw te leer yu rëy nanu gaw saytaane bu mu fi man dara lum xumb xumb bu mu soox bu fi xuloo am mbaate xeex te yàqkat yi mel ni neex bu ñu mënal mukk dara taw feex a ngi nanu fi féex te bun fi jàtt bun fi tagum ci wopp nan ci féex tagum ñàkkati dara kon way yooyu la defoon ci dëkk boobu di taw féex keroog bi ko fa soxna awa busoo ganesee ak kii di sëriñ ndaam abdourahman loo kon taw féex la ko sëriñ moor soxna yóbbu woon mu nekk fa way yooyu la fa defoon di ñaanal dëkk boobu ci giiru waxtaan wi ñuy séq yéen nag way wuñ leen ci tagal rek indi wuñ xasida gi lépp ndax kat dañ leen di firndeel ne rek soxna may bindkat la woon moo tax ñu ciy indi tuuti loxoy kii di sëriñ moor soxna ba ni sëriñ moor soxna génnee lii di àdduna magam ja mu mamadul mustapha mbàkke moo ko yóbbuwaat daaru salaam ci sëriñ moodu maamun mbàkke moom maam cheikh anta mbàkke foofu sax soxna maymunatu mbàkke am na fa lii di ak njaboot ak kii di sëriñ moodu maamun mbàkke ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ am amdi mbàkke ibnu soxna maymunatu mbàkke ibnu sëriñ moodu maamun mbàkke soxna aminata mbàkke ñu gën koo xam ci soxna toora mbàkke bintu soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ moodu maamun mbàkke keneen ku ñuy wax soxna maam anta njaay mbàkke ñu gën koo xam ci soxna yàkkale mbàkke bintu soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ moodu maamun mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ aboo mbàkke ibnu soxna maymunatu mbàkke ibnu sëriñ moodu maamun mbàkke sëriñ aboo mbàkke mii sax jamono ji mooy xalifab soxna may munatu mbàkke bintu seexul xaddiim yàlla na ko fi suñ borom yàggal ba tey ci mbindum soxna maymunatu mbàkke bintu seexul xaddiim ñaare fu masa ziyaara ji wala nit ziyaara si ko dana def ay way ngir firndeel ne foofa dem na fa wala nit ñëw na fa ginnaaw bu mu demee naawel ziyaare ji maamam ja maam astawaalo demaat na poroxaan itam ziyaare ji maamam ja soxna jaaratullaahi ñaari dëkk yooyu mu demoon nag def na ca ay way boole leen ci génn xasida ngir kat di sargaal ñaari maamam yooyu mu ziyaare ji woon ñu teewlu way yim ci def man tant naa bur yàlla fi shahrayni li ma gënoon a bëgg fi daarayni talaataam moo tax ma sant yàlla ci ki ni wan nu yoonu yàlla jumaada loola wa jumaada teeniya ci laa siyaara sunu yaari maam ya siyaara maam jaara rabiihul awwali jumaada teeniya maag jumaaweli siyaara maam asta basar ñaanal fa ku sopp Seex Bamba yërëm bu naa fa na ni dem naa makkatal mukarrama te àgg naa madinatal munawwara moo tax ma sabbi yi bayit muy teere ci sama may gi dañu maa laabiire xat-xat jortu naa ko sirra xabda sapat laa seere naa ko jëhra tabaarakallaahu na buur jéggal nu dunyaa wa uxraa daa iman musal nu tamay nu jàmm ak yiw féexal nu te suturaal nu te yërëm nu ma yar nu ñu nit jël nañ way yooyu def ko seede suñu digganteeg ñi ñuy déglu ngir firndeel ne dem nga naawel ziyaara ji maam astawaaloo dem nga poroxaan itam ji sa maam ji soxna jaaratullaahi soxna maymunatu mbàkke bintu seexul xaddim nag lii di ay xasida wala lii di ay wolofal ñu ràññee ci saa bu weer masaa teru itim moo xam gàmmu la wala weeru koor itim soxna Maymunatu Mbàkke bintu seexul xadim daana ci def ay way ngir dabu bëggub waajuram wu tedd wa ci weeru koor ñaaxaale itim lii di murit yi ñu gën a farlu rawatina jullit yi ci weer wi di weeru koor ndax saa su nekkat malaaka yi fay ñi ngi taxaw di xaar ku jëf bañ fay la ñu teewlu weer wi di weeru koor wu soxna may doon ngir barkeelu ca weer wa ngir fonk gu ko seexul xaddim fonk te moom kat bintu seexul xaddim la bayit yi Seex Bàmba wayoon ngir weeru koor laa bind fii day xam ne màggug weeru koor moo ko defal mboolem jullit bu sax ci koor ngir mu sawarte sant yàlla may buur bëggit ku njax lat te forot góorgóorlu wàññi nelaw tamus lu kuy fitteerlu nan mel ni kuy faaqu ci waxtu ceebu njariñu koor faw kanam mépp céebo loo def ci weer wa yàlla buur bi fay la ko ndem am nga pastéef loo waxit ñu fay la ko loo def ci weer wi yàlla buur bi fay la ndem am nga pastéef loo waxit ñu fay la boo randaloon sax bant walla ngay nelaw ngir yàlla ak yonem ba gaa yaa nga taxaw di la dundal tuyaa ba tey far moy te di la yëkkati te kaw fuñ say may yaa sayxu bamba defaral nu koor gi yéege sunuy mbir ban jubóog waa nguur gi ban defaral nu sunu mbir soppil nu mboolem sunuy ñaawteef yewey baddil nu ginnaaw weeru koor woowu soxna may munatu mbàkke bintu seexul xaddim way kii di cheikh Moussa sargal na ko ci way woowu mu way weeru koor moom itam delloowaat ko ay way ngir di ko ca ñaanal ñu teewlu ginnaaw bu soxna may wayee lii di weeru koor ba noppi waye ko cheikh Moussa Ka tontu ngir di ko ca wayaat moom yow soxna may yàlla nga yokkuy darajaat dunyaa wa uxraa fawqa kulli sawjaat ngir weeru koor wii ngay xalam jaam ba way ka way wii woor ko war na bépp jaam ngir ramadaanu moo di xal bu sannati waaju ko sonne file dootu sonnati naqmu siyaami shahri fi daarayni yafiikumaa ni war naa rey nit tax Bamba moo ko wax ci weeru koor wa saama altasim di fay tàngoor wa faata allatiina xaafasu ala siyaam shahrin bihi uxliqa baabun lil iyaam yal na nga làkk mbooti weeru koor ya ak laylatul qadri ba fawka góor ya pendal mu gën tubay bisub payoor ba yal na ko def keroog fa yàlla buur ba ci darajay Seex Bamba ak Rasuul salla alayhi llaahu bun fi suulu yow soxna soxna Maymunatu bintu Amina yal na ko doom yi yàgg sol bintu Seexul Xadim nag weer wii di weeru gàmmu itim def na ci ay way ngir di ko gàttandu ak weer wi ni mu ama solo ñu teewlu way yim def ci weer wi di weeru gàmmu ngir sargal gum koy sargal bismillahi waxal alhamdulillahi fi shahri mawlidihi almuxtaari yallaahu barkeelu wan nanu fi shahri defal ko ay ngir borom tuubaa fa yallaahu tafaddaloon nanu koy way ngir di taatu ci moom nan teeru wi ànd ak yallaahu te weer yii borom tuubaa bëggoon na ci ñoom ba tax na kuy wut ñëpp ndegam way leen fayal leeru nan leen di teeru di leen sargal di leen gërëmal Cheikh Bamba nii di mu soppantal ilal leeri nan leen di teeru di leen sargal di leen gërëmal Cheikh Bamba nii di mu soppantal ilal leeri nan leen di ndokkeel di leen neexal di tagg di way tey sant sant gu wóor Cheikh Bamba yallaahu marhaba shahru rabiihil awwali ci ndamam ahlan wa sahlan wa tarhiban fa yallaahu ñu nit Mbàkke ahlan wa sahlan cant guñ lay cant soxna Maymunatu Mbàkke bintu seexul xaddiim wéy na itim di sant suñ boroom di santaale waajuram wa xaadim rasuul ngir boole ko boole ci yoon wii di yoonu lislaam rawate na itim ci tariixa sant na ci kii suñ boroom ñu teewlu way yim ci def bëggul lu ban te yàlla xam na doy na kon naa ko dagaan ci le dara buur yàlla moo mat a dagaan yonen ba moo mat a wayaan seex ban ba noo ngi deeti ñaan mucc ci jépp larara buur yàlla noo ngi lay dagaan yonen ba noo ngi lay wayaan seex bamba noo ngi deeti ñaan ak bañ a tabbi sawara jamono jii nu tollu tey nu yeetalaat ba di la way nan mu ci may tawfeex juréy taxol yi nan leen saafara nan mën a bañ di soox bu nu xuloo mukk ak a xeex te yàqkat yi mel ni neex buñ noonal mukk dara teereel ni tuub nanu bu wóor sant la it bam de di jóor yar nu ba bun jadd sa mboor def nu ñu dul dem sawara man tey ku ban balaa gërëm gëm ko mu am ci man xoram yal na nu may ak saf xoram te doon di sutura waaye yooyu ngeen doon dégg moom la soxna may doon sante suñu boroom ci boole gum ko boole ci yoon wi di lislaam boole ko itam ci kër gi mu bokk di yoonu murit way yooyu mu ci defoon kii di Cheikh Moussa Ka itam na ko ay way di santaat moom di ko santaat ci nangu gum nangoo sant suñ boroom cheikh mu Ka itam santaat na ko ca ñu lu way yi ko cheikh mu saaka def ginnaaw bu soxna may sante suñ boroom moom itam mu koy sant ci cant gum nangoo cant nga daaw buur yàlla sant ko ren cant gu ànd ak yilla la in sakartum moo waral ngay dolli la in kafartum moo waral ngay folli yàlla na nga santaat déwén ak déwén jéeg ak déwén aatoo jéeg siyaara door a jéeg yàlla nga fekke ji matu jumaa aaja ngir darajay samaam ya ak saawaaja yàlla nu bokk teewe ngir seen daraja jullit jumaajay atayaat am maxraja yàlla na ban ba ngir darajaam ak darajay yonen ba sallaa wa sallama alayhi llaahu bil aali wa saabi wa man waalaahu amina amina ni leen amina ci darajay Seex Fallu ak Maamuna soxna Maymunatu Mbàkke bintu Seexul Xaddiim nag wéy na di def lii di ay way ndax bindkat la woon te ku ràññeeku la woon ba tax na jàmbaaru Seexul Xaddiim bii di Seex Musaa Ka kii di soxna may mënatu Mbàkke bintu Seexul Xaddiim way na ko ngir di ko ñaax mu gën a góorgóorlu ci lii di wolofal yi muy def ndax kat bari na ñu koy ŋàññ ci lii di wolofal yi waaye mu xam ne rek Seexul Xaddiim moo ko liggéey loo góorgóorlu loola defoon na ci ay way ngir di ñaax jàmbaaru seexul xaddiim bi di cheikh Moussa Ka ñu teewlu way yim ci def moom soxna may mu nattu Mbàkke bintu seexul xaddiim ma wax la tuuti yow sëriñ Moussa Ka diglu ko kon nga jiitu mboolem kànga sëriñ bi sopp na la fam na xol defar ko yor ko te jubal na sam xel baaraka fii kallahu yal na yàlla yokk la ay ngëneel te ful la fal la ci daraje yi ngën ji mbindeef ak mboolem ñu ngam li ngay taalif ñu yàgg koo lim te lii ma lay wax képp xamal sëriñ baa ma ko digal ci yow nde man firuma baa képp ku lay ŋañ ci tagg Bamba yee nga taxal koo muy sa noon ba yow jeex nga takk ci sëriñ bu mag bi ba too gatoo sa kër dawal machine bi machine nga rek nag yoroo sa bopp Seex Bamba moo la yor wéer bul dëpp te ku la man di ŋaññi nag muy mbokk mbaamu di jàmbur dañ ko jiitu fokk ngir Seexu Bamba ba mu jóg tagg ngën gi mbindeef mësu la ba àgg yal na yàlla suturaal ci barkeem te jox nu barke ful nu ñëpp di nu yéem mësu la na da daa dox ni ngelaw nelaw ngir topp yoon nen ba xolam mës la nelaw yawit nga jóg teewee ko kon nag war ngaa te ndam lu aw ŋàññi te yëg ni raw ngaa nga jot ko yow nag ci gën ñépp boroomam xiir la ci way ko góor góorlu ne fal la kon képp kuy ŋàññ seex musaa ka way wii ci nga bokk kon jërëjëf bintu seexul xaddiim soxna maymunatu mbàkke ndax kat am na solo lool ñu ñaax gaa yi toppoon xaadim rasuul soxna maymunatu mbàkke bintu seexul xaddiim wéy na nag di way ay way way na rakkam jot soxna xadijatu mbàkke mi mbokkal soxna aminata buso ak kii di ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim ginnaaw buñ ko ñàkk ñàkkee mu dëdduñu lii di àdduna soxna Maymunatu Mbàkke doon na ko jooy ñu teewlu way yim ci dem bismil ilaahi ma def tay ay bayit ci mbirum bintul xadiimi rasuulillaahi moom waare te wàññi rankooñ yi teesal xol bi lee ma gëlëm te jéema farlu te tuubal yàlla kii bëri ngir doomi lislaam du tiisoo mbir mu yàlla dogal daxal na seytaane yaa xabibakal jaari cey doomi ban ba ja tax ci itam ya nekk ca moom xadiijatul doomi taw tawfeex bis ba lay leeri sëriñ bi moo soxla doomam woo ko kenn yëgul diisoowul ak kenn moo tañ wax gilee biire jumaada loolaa di yow mallax di fukki fan ak juróom yu tëj benn bis lay woote tey waare guddig dibéer gala woo mbokkam ma sayiduna sëriñ soy bu la wax mbootam ya moo waare leeral mbirum adduna am baayam yoroo ko mbirum alaaxiram bàyyiwul sax bor bu ñuy seere daarul xuddoos la ko baayam teeru ñëpp taxaw Cheikh Moustapha moo ko ko waajal jox ko ay yére Cheikh Moustapha ne ku yaakaar ban ba ñépp na dem Cheikh Faliloo ko dugal nii gëm ba muy reere moo sellu baatin rafet sëngir mu jëm ga rafet baa ko soxla mu dem firdaw ci lay jaare kii sant rek ka ci war yal ko yàgga defal ay ñaan mu bokk ma dem yaag bàyyi la moo waare rakkam ja di soxna Jóob Mbàkke tam nekkoon ci loxoy sëriñ Ndaam Abdurahmaan Lo ginnaaw bu mu génnee lii di àdduna soxna Maymunatu Mbàkke itam dafa tolloon defoon na ko am marsiya ngir di ko ca jooy ñu teewlu marsiya bi mu defaloon rakkam ja soxna Jóob Mbàkke mi sëriñ ndaam Abdurahmaan Lo yoroon ci ndaam daaru xalimul xabiir mu ñëw fi def marsiya koo xam ni kii gisuma kanam ci rakk yi ak mag ñëw yi di maasam te jooy fi saa jooyi xol yi def ko muy walafal te wax ci la xam ci moom ci akadi bi yaaram boo ko xamoo Faati bintu Sayxina wa xalii linaa wa sayidina tey sibtu maam maharam ba tey bu ngeen ko xamoo moom la sëriñ bi joxoon Cheikh Abdourahman mi baaxoo xam la ngir baayam xamal na mboolem ku baayam jur na itam mbooloo ci ay teelu dem bañ xam ngir baaxam sëriñ bi wóolu ko def ko sàmm jox ko ñu ñam te tax la cay seere moo yor ngeen jikkuy maatam moo yar ki tax ma jóg tey jii di marsiya ngir baaxam gu landi akal moo xaw ngirum baayam lii sëriñ Abdullah wax moom la Bamba di fay ci sang bii booleen kertaak xam akub taaram maraña leen la turam wa soxna Jóob lañu koy wax Mbàkke Balla asar tey jii ma ngaak baayam bisub alarba ci waxtu tëkkusaan lañu may wax ak demam sama xol baa raw xol bi yaayam yaroog fulaak kerta ak làmmiñ wu gàtt taaram la boole bindoon na ngir baayam yaroog fulaak kerta ak lamañ wu gàtt ak ab la boole bindoon na téere ngir baayam daawul xuloo ku ko mag daawul xasit ku mu mag daf daataral ñépp moo gën na ku fi maasam daf maa bëggan lool ba def ma soppe moo tax itam maa ngi dund damay jooy ci tumaam ma xaram bu dul ko nag xam ni maqaamaa waral ñu ni cas saa soppe boobee danaa jooy jooy yu dig waaram kon kii di soxna Maymunatu Mbàkke bintu Seexul Xaddiim bindkat la woon ku ràññeeku la woon ci lii kéemaane la itim ndax ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw bu mu ko jébbaloon soxna fatja mbàkke mi magam ngir mu yar ko am na bés ci kaw Kawlax soxna Maymunatu mbàkke bintu seexul xaddim demoon fa lii di ngénte ñam fekki woon bëggoon mu fotowu ginnaaw bu yëgee doomu seexul xaddim mi ngi fi ñu ñëwoon ci moom sàkk sàkku ci moom aw foto mu leen di xamal ne ñi mu wuta foto wu foofu ci Kaolack te laajul lii di ndigal Kaolack ak Touba téeméeri kilomètre la ak juróom benn fukk soxna Maymunatu Mbàkke fa la jóge waat ñëwaat tuubaa gi ki ko Seexul Xadiim boole loon muy soxna Fatja Mbàkke ngir laaj ko lii di ndigal dana mën a foto wu waaw wala déet soxna fat Fatja Mbàkke jox ko ndigal ne ko mën ngaa foto mu doog a delluwaat Kaolack doog leen a wax ne man na ma ànd ak yéen lii diw foto wala man ngeen maa foto kon jaa jëf doomu seexu seexul xaddiim bi yar googu itim mu amoon lii di may Maymunatu Mbàkke yi war nañ caa roy seen bàjjan ndax ndigal rek moo am solo ku njabootug seexul xaddiim gi fonkoon la moo xam cheikh Abdou Lahad Mbàkke ba def na ci moom sax ay seede yu am solo kii mu cheikh Mamadul Faadal Mbàkke keroog bi soxna Maymunatu Mbàkke génne lii di àdduna ci atu 1966 bañ yëgal ko ko ndax booba kat moo fi nekk xalifa xaadim rasul wax na ne nañ ko denc ci wetu cheikh Ibrahima Fall ndax Maymunatu Mbàkke bintu seexul xaddiim mii mook Ibrahima Faal ñoo tolloo ab dayoo ci lii di yoon wi kon loolu moo waral soxna may munatu Mbàkke ñu denc ko ci wetu jàmbaaru seexul xaddiim ja di Ibrahima Faal wala maam Cheikh Ibrahima Faal foofu mu tëdd itim ci wetu maam Cheikh Ibrahima Faal yàlla na ko fa yàlla fekk ak yërmandeem ndax doomu xaadim bi kat yeyoo na ko way yooyu soxna may def lépp kii di Seex Musaa Ka nag tënk na ko ci wenn way ngir di ko ci ñaanal bu baax a baax a baax soxna may di ay way di ko ñaanal lii di am ndog ak musiba bañ koo dab te lépp loo xam ne nii barke la itam yu maamam yi am mu sotteeku ci kaw jëmm jooju ngir kat jigéen juy bind yombul jigéen juy way itam yombul loola itam Cheikh Moussa xamoon na ko ñu teewlu way yi ci seex Moussa Ka def ngir di ko ca ñaanal ma ba yit yi soxna may ngir say ko bambali ko may lakin ma di ko way ndax mu dëgër ci li mu moy ndaxte mu fàttaliku ma mbaa laa meñam wa tudd ma mbaate mu bég baramu ma ci darajay maam ma fa ngay yow soxna may muunatu neel amina ndax ñoom nga neel moo ngi dajaan lu la kaweel yal na nga rëy ba tol ni buy la tey xubban ba fas ci la nga fas moom ci yal na nga am lépp taraw ñi ci ne ak bi yal na nga mucc ci kañaam ak bët bu gudd ay jaam kuy dogi xeeti ma kañaam ñaan yàlla na la dara yaa xam jamoy mbooleem ku lay fexeelu ay yàlla na ca des te yow nga wéy mbooleemi say baay ak ndey na nga donn seeni may yàlla na nga mucc cib safaan yàlla na nga jiitu say cosaan maam jaara mee fa géejam nga yàlla na nga ca maam ak sa waalo wàcci na wal na ayam nga sotti na yóbbu na ñépp àjjana yàlla na nga war nañam ya doy diggante waa Mbàkke Bawal ak waa Mbusoobe kiñ xamal jigéen ju juñ ma sa jël yal nañ ko tiim pul seen may yal na nga ma boole ko yi lay bayit yu nekk lépp soxna may ginnaaw way yooyu Cheikh Moussa Ka way ngir di ñaanal soxna may mu gën a góor góorlu ci way yi muy def soxna may ginnaaw bu mu gisee way yooyu ko Cheikh Moussa Ka way jëlaatoon na lii di xalimaam wayaat cheikh Moussa Ka ngir moom itam mu xam ne yéene jooju cheikh Moussa Ka am ci moom am na ko ci moom ñu teewlu tontub soxna may mbàkke bintu seexul xaddiim ci yi mu def ginnaaw bu ko seex Moussa Ka wayee way yooyu di ko ca ñaanal moo daa wayal nga may bayit diglul ma tontu lay bayit ndax yàlla ban ba ni béréb digal la fay la ngeen ji fay gis naa te yéene moo rafet yàlla nga am fay bu rafet yàlla nga mel ni am te ñépp mooy murit bu rafetal ak muritam te jëngalul mel na mbëram jëme fudul ci ban ba mbër mi ñëpp mooy yal na la ban bay suturaal footoru yal na lay fulaal doli la barke jox la aal ba bépp jullit di la way loo jëf ci moom yal na ko ful faale la fal la ngeen ci fal te lépp luy lu rafetul bis penc yal na la ca mooy lépp lu bon yal na la mooy loo bëgg yal nañu la may te jox la ay xar di béy ndegeen di foo tollu di rey yow say xuban ba yërëmal moo saata may ko ngërëmal buur yàlla ak gëm rafetal léppam ta ko ngeen di may fegal nu nag ci adduna luy taxa neex lay jamono fegal nu nee fegal nu neenal jamono kamay nu jàmm junóoj mooy fegal nu nag ci adduna luy taxa neex lay jamono fegal nu neenal jamono kamay nu jàmm junu mooy te may ko lépp loo mébét ci ay murit yàlla ca jot murit yi yëpp yàlla jot seeni mébét ak seeni may te ku ca tollu sukkuraat ba ñi ci des di ko xalaat na fekk yow nga dikk xaar fab rooga yow mi yàlla may sarax nu fan yuy wii di wéy ba yàlla mii sa lépp ndax nga may na may bu tax ba ñëpp di roy ma teg ci way yii ba ne mu xëy moo saaka yawit boo ko gisee nag ni bërët ñaanal ma ban ba di ma xëy ginnaaw bu mu wayee wayu takku ci lii di araab sant sëriñ tuuba seexul xaddiim way njabootu ku baax ki xaadim rasul way lenn ci jàmbaaru seexul xaddiim yi santaat suñ boroom ci boole gum ko boole ci lislaam way ziyaara jum ziyaare woon maamam soxna jaaratullaahi ak maamam ji di soxna astawalo soxna may way lii di weeru koor ak gàmmu ak lu takkoo takku daal ci ak dundam ñu bari itam ci njabootu xaadim rasuul gi delloo woon nañ ko ay way ngir di ko sargal ci way yooyu mu def kii di soxna ami cheikh bintu sëriñ tuuba seexul xaddiim wayoon na kii di soxna may munatu mbàkke ngir xam ne ñoo bokk seexul xaddiim ñu teewlu way yi ko soxna ami cheikh mbàkke bintu seexul xaddiim defal yow soxna Maymunatu Kubra maa ngi ñaan ñu yokk la bi jeey Ahmad al nga neel ak daraja tamay la it wérug yaram ak fan wu gudd ak ngërëm ci moom tamay la it bu yokk sa ngërëm ci fay la la ngay na la yal na la fool yokk sa ngërëm bu wér seereel ni Mbàkke gis na la yaa gore yaa ñàkk ka yaa mel ne tey maa kon way yooyu ngeen doon dégg la ko rakkam ja way soxna ami cheikh mbàkke bintu seexul xadim ngir di ko sargal ak di ko ndokkeel soxna may ku kiimaane la woon ku yéeme la woon ndax kat jigéen juy bind yombul noonee mu meloon nag taxoon na doomu seexul xadim yi kenn ku ne joxoon nga ko cër ba tax tax na nga duppe lii di doom ngirit fay ko lam defaloon seen waajur wa muy jigéen ju njëkk bind ab kaamil yit ko seexul xaddiim mu ki nga xam ne nii bi seexul xaddiim demee gànnaar te seex ya baaba wax ko loola te aal duggoon waajuroom wa mooy ki fajal waajuroom wa aal ja wala mooy ki wàcceel waajuroom wa aal ja loolu lépp nag tax na mu nekkoon ku kiimaane kiimaan googu nekkoon ci moom tax na nag ñi mu séqal xaadimu rasuul ñépp tudde nañ ko lii di doom ñu ràññee ci ma mu dul mustapha mbàkke mbàkke mi magam di taawu waa waajuram cheikh dul faadal mbàkke tudde na ko lii di doom cheikh abdullahi mbàkke boroom dër bi tudd na ko lii di doom cheikh abdoulahat mbàkke tudde na ko lii di doom rakkam ja cheikh abdou xaadir mbàkke mi mbokkal soxna aminata bu saytim tudde na ko lii di doom sëriñ sohe bu mbàkke tudde na ko lii di doom cheikh moussa mi nga xam ne nii xaritam la woon itam tudd na ko lii di doom cheikh moussa ka moom sax soxna maymunatu mbàkke bintu cheikhul xadim daana way ay way yoo xam ne nii moo kii di cheikh moussa ñoo ko séq séq ñu teewlu lenn ca wayya moosaa kat war nga ni bërét te yàlla te rafet njortu xam ni yii bayit kamel ni ban baa la ko way la tay xuban ba daa waliw la soxna may di way wolof lameñ yaaram mooy wolof kulon yaay nee na la ndey gëdaa ci rabbi soxna may ku gora sant kala may sa tax dee fi ma way yàlla nga xëb ne dee fi fay kon jaajëf fintu seexul xaddiim waaw góor jàmbaaru seexul xaddiim ba kon ñoom ñaar nii lañ toppoo woon seenug dund ba ni soxna may mbàkke génne lii di àdduna seex musaa ko wéy ba moom itam ni mu génne lii di àdduna kon ñoom ñaar yàlla na leen suñu boroom fay soxna may munatu mbàkke bintu seexul xaddiim mi ngi génn àdduna bisub ajjuma fukki fan ñaar ci weer wi di weeru digg ci atum 1385 ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ñaar ci weer wii di weeru digg ci atum 1385 ci gàddaay gi ci hôpital bu Mbàkke Bawal ci feebar bu ko tëral dëppoog muy vendredi 4 mars 1966 vendredi 4 mars 1966 ci xilaaf ak magam ja cheikh mamadul faadal Mbàkke cheikh mamadul faadal moo wax ñu denc ko ci wetu maam cheikh ibrahima faal mu cay teg ne ñoo tolloo ab dayoo ci yoon wi cheikh mohamadul faadal Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa seexul xaddiim wax ne nañ woolu kii di cheikh mamadul bashir Mbàkke mu taxaw taxawu soxna maymunatu mbàkke bintu seexul xaddiim cheikh mamadul bashir ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim moo jullee kii di soxna may munatu mbàkke bintu seexul xaddiim soxna may maymunatu mbàkke ay xalifaam nag nii la tëdde sëriñ mustapha may moo ko wuutu ci atum 1966 ba ci at mi di l'an 2013 l'an 2013 ba nëgëni nag ñaareelu doomam ji moo ko wuutu ñu koy wax sëriñ aboo mbàkke ibnu soxna maymunatu mbàkke ibnu sëriñ moodu maamun mbàkke ibnu maam cheikh anta mbàkke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér am na a bis nag bu ñu koy fàttaliku moom soxna munatu mbàkke bintu seexul xadiim muy fukki fan ci weer wii di weeru korite njaboot gi ñoo jàpp bis boobu ngir nag di ci fàttaliku seen waajur wa soxna Maymunatu mbakke bintu seexul xadiim saa bu dikkee di fukki fan ci weeru korite ñu màggalal ko li ñu tuddee ak màggal ñaanalaale ko ci ngir suñ boroom yokk ay leeram te guddal fanu njabootam ak sëtam yi mu màggal gi nag njaboot gi dolliku ci seen waajur wa waaye fukki fan ak ñaar ci weeru digg la génn lii di àdduna ñeenti fan ci mois de mars ci 1966 itim la génn lii di àdduna li ko dale ci atum 1997 ba nëgëni nag njaboot gi ñu ngi koy fàttaliku taawam ba sëriñ Moustapha May mooy ki daa amal bis bi ba nëgëni itim ñaareelu xalifaam bi ko wuutu di sëriñ di Mbàkke mi ngi koy wéyal kon yàlla na leen yàlla fay ci seen darajay waajur ak seen maam ja Xaadim Rasuul doomu Seexul Xaadim ba soxna May Munatu Mbàkke yàlla na ñu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem bi jaayi xaadim rasul mi waajuram amiin mi waajuram amiin mi waajuram amiin mi waajuram amiin